Amina Badiane ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. fay naa leen maa ngi leen di nuyu bu baax di leen fay. Mhm. ngay présidente euh, comité Miss euh, Sénégal ñu daan ko gis at gu nekk atum ren euh, ba tey ñu ngi koy taxiblu mu mel ni da ngeen koo ajandi ndax li nga xam ne mooy mbas mi fii nekk tey ñu bëggoon a xam aj googu justement lum leen yàqal. waaw Elisa ren ku ne xam na ni yombul parce que année Covid la ñu nekk. Mhm. moo waral ñu former ñu créer benn format boo xamante ni digital la boo xamante ni dañ koy def. sous forme émission émission mm-hmm. télé mm-hmm. ànd ci ak waa 2STV ñu def euh, région yëpp boole euh, fii région yëpp dajale leen jam ñaajo mm-hmm. ñu ne nag nañu tànn jam ñaajo parce que jam ñaajo dafa nekk site bu bees boo xamante ni président de la république dafa def ay innovation dafa def ay infrastructure yu bees donc yooyu moo tax ñu ne nañu ko jox visibilité bu mag pour que monde bi yëpp mën xam ni Sénégal aussi am na nañu ay euh, infrastructure mhm. moo waral ñu defee ko jam ñaajo ci village Sénégindiaye mhm. mais innovation bi ñu indi ren mooy dañu ne nanu liggéey ak su suñu produit dëkk locaux mhm. Euh, bu ñuy jaay promotion de la destination dañ koy jaay ak li ñu am. Mhm. moo waral euh, ñu amoon ay nit yu jóge ku nekk ñoo xamante ni ni ay professionnel lañu. ci mhm. ci wàllu milieu bi. Mhm. ñoom ñu ñëw mën a jàngal xale yi nu ñuy defaroo nu ñuy maquiller donc jox leen ay cours. bu loolu weesu aussi ànd nañu aussi ak école formation euh, hôtellerie du tourisme. Mm-hmm. ñoom ñëw nañu pour def aussi ay concours togg parce que ku ne xam na ni aussi ku ne culture sénégalaise aussi ne togg. Mm-hmm. parce que jigéen ñi aussi du beauté aussi dafa war a ànd ak euh, njariñ. Mm-hmm. dañu war a mën a togg war a mën a wane aussi beneen facette. parce que xam nga bu njëkkoon concours de beauté da ngay dox rek. défilé dem ñëw mais dañ ni non. il faut ñu profiter aussi pour wane li ñu mëne mhm. suñu li ñu am ci suñu dëkk suñu mhm. koom-koom ak suñu taar mhm. donc loolu moo waral ñu doxalee ni ñu doxalee cette année et justement lan ngeen ci perte euh, ci en terme parce que pare woon ngeen pare woon ngeen pour tenir finale bi euh, mu jëntal ba ngeen aj ko Euh, du ñàkk ne amoon na yi nga xam ne dugaloon ngeen ko ci wàllum préparatif. waaw liñ ci perte bari na loolu loolu parce que ñun jotoon nañu fay déjà ay billets d'avion jotoon nañu kale ay hôtel pour organiser final bu mag bi. Mhm. mais par la suite Covid ñëw daanu saa bari. alors ñu ne le plus sage mooy ñu bàyyi lép toog jàpp ci yàlla quoi ba Covid bi passé. ndax tamit comme kenn du xëccoog euh, suñu ministère rek nitu nguur mm-hmm. parce que nguur gi ñoom ñoo teg yooyu euh, euh, règlement quoi ñoom ñoo ni lépp luy événement dañ koy arrêté mm-hmm. donc moo tax ñun ñu déglu leen daal di wékku ci loolu tëj lépp toog xaar ba yàlla def nag léegi comme temps yi covid bi cas yi wàññeeku na mm-hmm. donc ñi ngi xool naka lañ ko mën a organiser fii weer bi di ñëw donc balaa yàgg incha allah dinaa leen jox date boo xamante ni nii dinañ organiser waat affaire bi mais nag euh, liñ ci ñàkk daal metti na mais je pense que ren ñëpp am bo problème donc du ñun rek dañ koy sante yàlla mm-hmm. di ko doyloo yàlla di xaar <laughs> yàlla jox ñu leneen aussi. Mm, d'accord nga wax innovation yi nga xam ne moom ngeen fas yéene woon andi ren ba tey jàpp naa ne ci ngeen nekk euh, ngeen doon mandargaal ñaata at ba ba Miss Sénégal dalee am ak léegi. waaw euh, ren euh, dañuy féete juróom benn fukki at. Mm-hmm. donc bëgg aussi profito rendre hommage mm-hmm. Moïse Ambroise delloo ko njukkal parce que nag tey buñ ñu wax Miss Sénégal yàlla ak moom la moom moo ko fi indi moo ko créé moo tax nit ñi xam ko ma ñëw mu jox ma ko ci joxin bu rafet ma doy ko mu yëkkati mu nekk lu rëy ci man mhm. donc tey ji war nañ ko mën a sargal war nañ ko mën a bàyyi xel mhm. moo waral nag ñu ne ren comme que Miss Sénégal dafay def at yooyu yëpp te mhm. mooy anniversaire bi il faut ñu delloo ko njukkal moom donc finalu ren bi moom lañ ko tuddee moom lañ ko dijjee euh, euh, nga wax ko tout à l'heure euh, reine de beauté tey ji dafa doon lu concours bi da ngeen ci taxaw def ci ay moyens mais daan nañ dégg Sénégal ci yeneen concours de beauté génn ci Sénégal dem mm, comme CEDEAO comme Miss Monde euh, tey ndax loolu ba tey euh, Sénégal lañ ci am taxawaay googu. waaw xam nga bi ko mooy gérer euh, dem na ci international mais après dafa amoon rupture nag bi ma ñëwee nag ba jël ko ci laa delloowaatee Sénégal Miss Monde. Hmm. te loolu mu nekk lu rëy ci man parce que kenn demu fa dematu fa woon. Mhm. bu dee Miss CEDEAO moom loolu yàgg naa kii amoon. rupture boobu mhm. ba léegi amatul woon ça fait presque euh, autant dem kii moo fa mujjee woon a dem quoi Fatimata Diallo je mhm. crois non ou Maïmouna je me rappelle plus en 2008 voilà 2008 la gëjoon am. mais actuellement nii ñi ngi waxtaan. ñi ngi waxtaanaat ak fédération CEDEAO bi def organiser nañu lu bees. Mhm. ñu ngi koy waaja relancé relancer ñu ngi xalaat sax defee ko Sénégal. Mhm. maa ngi nekk di waxtaan ak ñoom ci loolu. Mhm. donc loolu aussi léegi dinañ leen ci jox balaa yàgg ay information yu leer parce que yooyu dafa am solo. Miss Sénégal warul yam kese Sénégal mais dafa war a génn ci biti mhm. parce que loolu moo waral ñuy ñuy jaay destination mhm. muy muy nekk promotion touristique parce que dafa war a servir suñu dëkk quelque chose mhm. nekkul ni dañ koy def nii rek pour def mais Euh, Sénégal daf ci war a tirer des opportunités gis ci boppam ñëpp gis ci seen bopp. dajale ay euh, jigéen ñu jàpp ne bokk nañ ci ñi gën a taaru euh, ci réew tey mën nañoo jàpp ne yombul parce que di ci dégg lu ne comme genre critique loolu tax ba ñu laaj la yan obstacle justement ngeen di dajal souvent ci terrain bi. waaw obstacle yi ñuy dajal ci terrain bi bariwul. amul solo parce que euh, tamit il faut ñu xam ne xale yi ay fii yi nga xamante ne ñoom ñooy participer ay xale la lañu hmm. du ñàkk léeg-léeg ñu génn ne bon man euh, digoon nañ ma lii il faut ma am lii wala nga dégg polémique boo xamante ni dafay wax ci affaire rafet rafet na rafetul kooku tamit dafa nekk lu relative parce que rafet dafa bëri ay mbàcc ay façon mhm. rafet du du du beauté esthétique rek li ngay gis ci biti mais aussi il faut ñu xool li ñu am ci seen bopp mhm. seen niveau intellectuel ndax jàng nañ ndax mën nañoo wax ndax dégg nañu français ndax dégg nañu anglais mhm. donc loolu tamit dafa am solo ambassadrice lañu ñoom dañu représenter seeni dëkk bu ñu génnee ci biti dañ leen di xoolee comme Sénégal par exemple soo demee Miss Monde mhm. euh, seen tur yi au Alberta ou Amina mhm. euh, Sénégal la ñuy tudd foofu Miss bu nekk sa dëkk ngay tudd. d'accord donc loolu rek ça veut tout dire. Mm-hmm. ça veut dire que kon ñoom dañuy génn pour jaay seen dëkk représenter seen dëkk donc bu bopp bi dara nekkul mm-hmm. ci bopp euh, li nga xam ne mooy beauté au Sénégal maanaam ñi nga xam ne ñooy def élection Miss yeeg yooyu bu njëkk ba dañ daan naan dañoo rafet rek waaye euh, bopp bi dara nekku ci ñu gis ne depuis quelques années. Euh, booy déglu miis yi ñiy def concours bi ñuy présenté wu da ngay gis ne am nañu benn niveau euh, d'étude lan ngeen ci jublu. waaw loolu liñ ci jublu mooy que xale yi ñu gën a jàng gën a góorlu parce que suñu jëlee euh, critères yi aj ko nekk mm-hmm. képp ku nga xamante ne ni eh, bala ngay bokk il faut nga am benn diplôme bi. Mm-hmm. loolu dina leen pousser dina leen exciter pour ñu dem jàngi. Mm-hmm. parce que c'est important. ñoom bu ñu tollee ci jàng dañu war a jàng d'ailleurs loolu moo tax sax ñun euh, bu ñu gañee au lieu ñu leen di jox ay simple voiture buy jar ay euh, trois millions ou deux millions ou quatre millions ñun on préfère ñu doon ñu jox leen ay bourse d'études mm-hmm. yoo xamante ni dinañ ci jàng pendant cinq ans seeni waajur yi dootuñu fayeti ay ay ay bourse mm-hmm. wala boog ñu génne leen ci biti ñu dem bitim réew gën a jàng gën a yokk seen xam-xam mm-hmm. donc loolu dafa am solo mm-hmm. donc boo tollee ci ndaw da nga war a jàng message boobu lañ leen bëgg a jox donc c'est pour cela ñu jël kenn koo xamante ni ni amuloo diplôme wala yow sa jàng amuloo dara ci sa bopp. voilà loolu mooy innovation yi nga xamante ni indi nañ ko année yii nii. bu ñu gisee euh, nan ngeen di amalee euh, lii di organisation bi dinañ xam ne euh, koppar génn na ñu bëggoon a xam koppar yooyu ndax yéen ci seen fonds propre ngeen di defee organisation bi wala dafa am yeneen i jumtuwaay yi nga xam ne foofu la xaalis gi di génnee. waaw koppar mën nañ ne am na benn pàcc boo xamante ni samay fonds propre la am na ci leneen loo xamante ni état dina ko si jàpp mais aussi loolu yëpp doyul aussi dañu bëgg état bi mu gën ñu jàppale parce que événement bi dafa luur xaalis bi mu luy soxla dafa bari donc comme dinañu soxla lu toll ci deux cent millions ci ci xaalis pour ñu mën a organiser donc dañuy ñaan suñu ministère de tutelle yi ñu gën ñu jàppale le ministère du tourisme surtout mhm. ak de la culture ñooñu ñoom ñoo ak de la femme et de la jeunesse ñoom ñëpp ci lañ bokk mhm. et même la formation professionnelle parce que tey ñun yore nañ ay projet yoo xamante ni dañu bëgg a former aussi après miss mi ci ku ci nekk ñi war a jàngi euh, ñu tànn seen i métier ku bëgg def stylisme def stylisme ku bëgg a def leneen def leneen mhm. mais euh, il nous faut des ba pare ñun bu ñuy def suñu final aussi dañuy recevoir ay gan yoo xam ne dañuy jóge un peu partout les ministres de la CEDEAO dañuy ñëw gan yi jóge ci yeneen réew yi donc donc loolu c'est un rendez-vous annuel boo xamante ne nii c'est l'image du Sénégal kooku il faut état jàpp ci ba nga xamante ni gan yi bu ñu ñëwee teraanga bi ñuy wax ni Sénégal dëkku teraanga la ñu mën ko wane donc mais loolu tamit il faut il faut ñu def di ci war. Mhm. il faut ñu jox ñu hôtel yu ñu dal il faut ñu jox ñu lu ñu lekk il faut ñu jox ñu le transport. Mhm. saal yi ñu koy organiser donc dañuy ñaan daal ñu gën ñu jàppale pour que affaire bi gën a réussir pour que Sénégal gën a mën a am ndam et bu ñu demee à l'international aussi mën a gagner couronne bi indi ko Sénégal comme coupe du monde football comme aussi euh, les Lions. <laughs> <laughs> d'accord euh, ci gis-gis gi euh, tout à l'heure sànq ci défi yi euh, tey dafa am benn bët bi nga xam ne sénégalais yi ñu ci bëri moom la ñuy xoolee concours de beauté googule ñoom jàpp nañ ne loisir la tey lan ngeen andi teg ci table bi ngir gën a convaincre ñooñu leen di xalaat noonu ne am na naam loisir waaye it am na li nga xam ne c'est utile. alors loisir la benn côté mais aussi du loisir beneen côté. Hmm. concours bi dafa war a servir le Sénégal quelque mhm. chose mhm. par exemple côté destination touristique bi ñun dañ koy jaay mhm. xam nga ñun euh, euh, fii yi nga xam ne ñooy gagné ñooñu ay ambassadrices lañu dañuy représenter seen dëkk moo tax ñu ciy soxla background bi euh, tête bien faite pour que ñu mën a dem jaay le Sénégal wone atu yi ñu am suñu site yi ñu am ak la promotion culturelle dafa am solo waaw parce que bu Miss Sénégal amee en général tu vois échange économique culturel da ngay gis ñëpp dañuy ñëw eh, ñi nga xamante ni dëkkuñu fii dañuy ñëw assister événement bi Miss CEDEAO yi ak même l'international donc loolu dafa am solo ci dëkk dafay dafay mouvementé suñu économie donc Sénégal côté boobu la la mën a gagné ci konkur bi d'accord voilà mooy tax concours bi hmm, mu am mu amal leen solo parce que dañu bëgg ku nekk gis ci sa bopp sénégalais gi ci seen bopp autorité yi noonu aussi ñun ñu koy organisé aussi. gis ci seen bopp voilà comme amuñu date Amina donc mën nañu jàpp ne incessamment euh, di dingeen communiqué encore ci kañ la ñuy xam ku gën a taaru fii ci Sénégal. di ngeen d'ici la semaine prochaine dinaa leen communiquer date bi incha allah léegi rek balaa yàgg. <laughs> ñu lay jaajëfal bu baax a baax Amina Badiane. Ah, merci beaucoup Elisa. Uh-huh. merci Infos Rewmi di kontaan trop di am mbégte ci invitation bi. Uh-huh.